ñi nga jot a am kuus néew ñu naan la léegi wax leen ñu démissionné parce que nangam ak nangam bu ma doon mooma du ma ko def ah, ñoom ñoo ko waxoon daal Cheikh a Cheikh Bara wax naa la ko Sonko waxee waxoo ko Sonko waxul loolu Cheikh Ba man xam man ah, dama lay suivre chaque jour ndax say analyse yu mhm. pertinent ak yu véridique <laughs> léegi nag mais livre ne Ousmane Sonko waxu ko man man je ne plus vous suivre mais waxoo ma ma fu mu ko waxee bopp nee nga ni da bind voilà mais bind boobu ma ne la maître eh, eh, la mbind mi wala bu toogee man dama yaakaar ne solution yor pour bu toogee la wax <laughs> boo nit avancé waxtu bi mu ngi ñuy xoj ñu mujj. déet solution bi moom d'accordal na Sonko bu toogee la wax bu toogee waaye waxul buy opposé wu loolu moom buy opposé wu moom bokkagu ci. léegi nag man cumul de fonction nag gawuma ko man bëgguma ko. Uh-huh. waaye nag bëgg naa ko ci député maire. Uh-huh. gis nga si Abdou Bara Dolly. men xam nga Touba moo moo moo fal su fekkonte ne mooy maire Touba nekk député wu Touba. Uh-huh. complément la. Mm. li koy naqari ca ci goxam lay ñëw fii wax ko fi. d'accord Ahmed Aïdara député ba nekk euh, mooy député euh, euh, Géejawaay nekk maire Géejawaay. Mhm. complément la. Mhm. cumul de fonction xaw ma fu mu bon. Mhm. mais du député maire du parce que complément te bu fekkoon ne da ngaa am beneen député ci biir Géejawaay. am maire bi maanaam loolu sax mën naa indi problème mu conflit de intérêt. léegi nag boo gisee ñi bañ cumul de fonction xam la moo tax ñu koy bañ. mooy nga nekk ci yor leneen. loo xamante ne mën nga ci jariñoo ci loi yi jóge fii wala ci ci ci ci ci xaalis bi jógee fii di ci gagné marché wala nga di am leneen looy def loo xamante ne nii conflit d'intérêt la xam nga nan lay demee mi ngi mel ne tey nga jël ku mel ne Moussa Bocar Thiam agent judiciaire de l'État tey mu ne day nekk maire mhm. te yow mi ngi mel ne agent judiciaire de l'État mooy bu ñu toojee état bi yow yaa koy porte plainte yaay taxawal état bi. pour fu mu toll nii de fonction bi di nga ko laya laya lay ba jëm koo solal tubay. mu lan ba ba bëgg koo. Euh, lewal waay waay Pastef wala neen avancé. waxtu bi non man layuma yaa ngi lay Cheikh Bara yaa ngi. <laughs> xam nga man xam nga man. waaw léegi ñu avancé man xam naa ne man xam naa sa position. ma rapport man bokkuma Pastef. Mm, Pastef nga bokk. bokkuma. Pastef dama lay laaj. man doo ma laaj de man maay laaj te wax. waaw waaw ma ma leeral sa laaj. di jarul ngay leeral laaj man gisoo ma ndax ma gis man ma ne. <laughs> ma ne ma toog ki télé wal fajiri Awa Diom Ndiaye moom ma invité ma ne man Ousmane Sonko ba mu dalee politique ba léegi mosuma ko wateel. élection yi jàll laa mas a toog laa mas a dugg ci urne woote coalition boo xamante ne nii intérêt Sonko la mais bu dul loolu toog naa ci télé devant public <laughs> ma ne eey ah man musuma wateel Sonko loolu biram Souleye da ko ñemee wax uh-huh. bu ko waxee ñu dàq ko uh-huh. na ko Bassirou Diomaye Faye wax bu uh-huh. ko waxoon ñu dàq ko mm. toog naa fii ñu woote seenu mars ma toog ma ne leen mars bi bu kenn dem dew ma xam nga lu ma bëgg ñu naa ah, man leen seen seen suppléant yii liste suppléant bii jël leen ko ngeen demee ko Mm-hmm. waaye marche bi ànduma ci bëgguma ko. d'accord tooguma tooguma wax ko yaa ngi may seetaan. maa lay seetaan léegi loolu ku bokk ko Pastef da koo ñeme. waxal waxal bu subaa bu ko Bassirou Diomaye Faye defee rek. ko da wone ko dàq naa la <laughs> te kenn mënu maa dàq. maa lay <laughs> maa seetaan chaque jour <laughs> mais wàllum cumul de fonction bi moom sëriñ bi man xam nga sama xarit nga. non Sénégal dañuy jékki-jékki rek euh, jël dara. di ko coow di ko coow ba mu mel ne. ba mu mel ne waajee kaw ah non Sonko waxul loolu wax na ko waxu ko Cheikh Bara. xam nga man damaa am nit ñoo xam Cheikh Bara nee na Sonko ko. non xoolal waxtu bi daf ñoo xoj. <laughs> waxtu bi te yow rek dafa métti te da ñu wax aussi. Cheikh Bara par rapport ak li nga xam ne euh, mooy euh, déclaration de candidature yi nga xam ne nemmeeku nañ ko un peu partout opposition bi ñoom fu mu toll nii ñoom ñooy wane seen bopp président Macky Sall a camp moom. xamagun kan ban mbër lañ war a ngemb pour 2024 euh, gis nga Ousmane Sonko moo njëkk a boppam par ak euh, bëgg a dem si li nga xam ne mooy euh, sélection présidentielle 2024 mais am na dossier justice boo xam ne mu ngi si loxoom mu ngi si ndoddom ñu féetoo sax si pouvoir bi di naan dafa war a dem seetal boppam kii di Malick Gakou aussi génn di fëgg dënam ne moo nekk meilleur profil euh, pour le Sénégal Khalifa Ababacar Sall aussi bu amee li nga xam ne mooy euh, éligibilité wala sax euh, ñu amnistie ko moom dafa nar aussi def candidature 2024 parce que wax na ko foofulee si France 24 Karim Wade aussi la même chose nga am si ban jàngat profil yu bees yi ak tamit langam politique bi nu mu nar a ubbeekoo nii en 2024 est-ce que aussi du nekk handicap pour le président Ousmane Sonko. waaw yaa sax yaa ma fàttali gis nga Karim Wade Karim Wade bëggul amnistie xam nga lan moo tax. <laughs> parce que Karim non non Karim xam nga ni muy liggéeyee. ak ah. pour ci CVM ñu ne ko dañ laa tëjoon baal la baaxul. mais xam nga ngay def da ngay modifier corps électoral bi. Ah. ne ko jël Karim sa carte d'identité gi nii am nga droit ñuy wateel la. Ah. soo ñëwut nag yaa xam. su boobaa day ñëw kon donc bu ñu bëggee sax ñoom Karim Wade bokk ci élection yi nañ def. nañ censé modifier code code électoral code électoral bi te bàyyi ay affaire mhm. admissible admissible jaru ko léegi nag bu fekkee candidature yi candidat moom ñaar rek la mooy koo ñett mhm. dafa am koo xam ne day coow waaye bu dem jotee day wut fu ku gunge comme Abdou Latif Coulibaly daf ne woon damay dem damay dem damay dem biñ demee ba jege mu ne maa ngi dem ci Moustapha Niass ànd ak moom mm. kooku am na Euh, ku mel ne Arona Coumba Ndoffène dana woon damay dem damay dem mhm. dégg nga ba mu yàgg mu jékki-jékki na ah man daal dem naa ci Macky Sall ànd ak moom kooku benn kenn la ci candidat pour le moment nii mhm. dem mais wóor na ko ne moom du nekk président de la république mhm. waaye day dem pour ku nekk ku nekk ku nekk pour mën a wàccee président bi il faut mu am ay candidats yu taxaw Malick Gakou ngay waxal ne non waxuma dama ne façon candidat yi laa wax boo paree yaay tànn ki la ci soob am na koo xam ne xam na ne du nekk président de xam na ne mënut a gagné. Hmm. mais am na caution te xam na ne day am parrainage day am lépp mais du àgg ci mën a mën a gagné amu ci yaakaar. Ah. xam na ko mais nag day bokk pour en bu demee deuxième tour mu ñëw remplir ci ci ci opposition bi pour mën a daaneel pouvoir bi kooku pour hmm. mu xeex la. Hmm. moo tax ñoom Khalifa Sall ñëpp gëm naa ne dañuy dem pour nekk loolu mooy mën naa am ma dem mais mën naa am su ma demul it li may xeex dinaa ko mën mën a mën a jàppale ki dem. Ah. comprendre mhm. keneen koo xam ne nag moom dafa njortu ne moom mën naa gagné. Mhm. dégg nga kooku nag mën naa nekk Ousmane Sonko mën naa nekk Karim Wade mën naa nekk Khalifa Sall kenn ku ci nekk mën ngaa jàpp ne yow ci sa xalaat xam nga tey bugaan rek tey mën naa gëm ci moom ci boppam ne moom bu demee day nekk président kooku gëm-gëmam la kenn du ko tere mhm. ñett ñooñu rek moo am mooy am na koo xam ne gëmul na sax dina bokk mhm. dégg nga am koo xam ne gëm na na dina bokk mais gëmul na dina gañe mhm. am koo xam ne nag gëm na na day bokk te gëm na na day gañe moo tax ñett ñu bokkul loolu tax jamono bii déclaration candidature yi day bari. Mhm. mais luñ gën a jege rek muy gën di wàññeeku. Mhm. gis na élection législative yi jàll. dañu mhm. ne xoo rek ñaata ñaata nga déggoon ñu ne dañuy nekk député. Sénégal gépp ne woon dañuy nekk député mais finalement 15 personnes ñoo ñëw. finalement ci 15 personnes yooyu 8 ñoo mujj réaliser seen seen yooyu. noonu la demee voilà. mais li am solo mooy euh, man daal parrainage bi ma soñoon ñu dindi ñu dindi parrainage bi Sonko waxtaanee nañ ko sax pale ah. waaw xam nga dossier judiciaire Sonko boobu. damaa bëgg su ma sañoon ñu man xaw ma kañ la mais dinaa bëgg ñu dalal ma spécial ñu waxtaan ci bu baax gis nga dafa loo xam ne. boo boo jógee màggal. Euh, gis nga soxna si climat politique bu bon bi ñuy dund nii. ba Imaam Ndaw bu tëddee hôpital ñu ne noonu dañ koy posone mhm. dañ koy rey su Karim demee ñu ne Karim ponse nañ ko ca op ca kii ba. Mm-hmm. soo lu xew nit ñi ñemee tuñ climat bi bon Macky Sall opposition bi am plus de un million cinq cent personnes yu leen voteel mm-hmm. te mënta mënta loon a woo ci dialogue wax ak ñoom. Mm-hmm. climat boobu problème dossier Adji Sarr moo ko andi. loolu dafa waroon a nekk bokkul woon ci politique. mënoon nañu wax Sonko katu suuf mënoon nañu wax ko euh, amoo programme soo amoon xam-xam contradiction yi nga def waroo ko woon de fonction yaa wax loolu lépp problème politique la. mais yow yaa violé soo ko xasee ba wax nit tamit bàyyi jàmbur di doomi jàmbur di jëkkëri jàmbur so lim lay deseel ci ci ci ci li maanaam fi mu lay téyee ci xolam mën naa nekk day metti ñi ci to ñi topp tamit maanaam ñi ñi ñi nekk ak Macky Sall tamit conseil yi bëriwul parce que mi ngi foncé rek di dem te gis nga euh, affaire u Adji Sarr Sonko man su ma doon su ma doon su doon pour climat politique bu normal amaat Sénégal ah nga xam ne léegi climat politique la il faut procureur na def ne non lieu am na. ah te te demoon